concerné lu bëree bëri di ko wax ci ci turu conseil municipal bu Touba ci turu bureau municipal ci turu conseil municipal bi waaye ci turu population Touba di sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam di am mbégte lool waaye di am ñeewante lool di am yéene encore ju raw ji ñu tàmbalee def di ñaan yàlla nañu yàlla may kàttan ak am xel te may ko réew mi ba xale yu fi nekk yëpp mën a liggéey kenn ku nekk nga mën a liggéey am loo jàpp ba mën a dund sa dund teral say waajur ba mën a régler sa avenir di leeral rek euh, mbooloo mi ci teewaayu monsieur le sous-préfet de Ndam ci turu population bi yëpp di leen xamal ne dara musul nekk suñu yittee ci àdduna lu dul fexe ba nit ñi am jàmm diirab bi ñu ñu tegee fii ci bopp conseil municipal bi ñu ànd ak conseil yi ak bureau municipal bi ci kanam population bi di di leen xamal ne dafa am benn programme boo xam ne gouvernement Sénégal moo ko teg muy ubbi teg benn service bu ñuy wax FERA FERA mi ngi bokk ci Mansour Faye mooy ministre bi administrateur bi mooy Mamadou Faye ci ndigalal président de la république mu wax ne defar de baax na waaye bu ñu defaree ba noppi ab suwi dafa am solo ci infrastructure publique muy bépp barab yoo xam ne nii mbooloo mee ko moom di fa daje te muy yëfi état wala muy muy mbiram publique infrastructure publique bu nekk muy nag ñu wut nag service boobu di feera président sant leen ñuy jàppale ambassade yi nga xam ne ñoo nekk ci Sénégal yàlla dogal lu mat juróom weer ak nii wala juróom-benn ñoo ngi waxtaan ah, maa ngi waxtaan ak ñoom ci du Faye ngir kam mu jàppale ñu ci dëkk bi ci entretien yi nga xam ne moom la ñu war a def ci yoon yi ndax ku nekk xam na ne fii dañuy dund lu xaw a métti bu nawet bi ñëwee ci assainissement bi ci inondation yi waaye bu nawet bi jàllee. dafay bari la am liggéey bu baree baree bari boo xam ne laaj na ko ñu war ko désabler war koo nettoyer ngir oto ak nit ñi man di dem ak ñëw ci lu te duñ am benn jafe-jafe loolu nag bi ñu ci waxtaanee bi ci 2020 bi ba at mi di bëgg a jeex ma ne ko ñu bàyyi ba at mi teru ngir ñu mën a am contrat bu yàgg waaye ngir aussi ñu mën a am population boo xam ne danañu mën a liggéey fukki weer ak ñaar loolu moo tax ci seen ndimbal ñu wut ñetti téeméeri nit la ñu recruter fi mu nekk nii ci xale yi ku nekk xam ne jafe-jafe bi nga xam ne moom la xale yi am ci liggéey defe naa ne ci fan yi dootul lu jar di expliquer réew mi président de la république xam na ko réew mi xam na ko sénégalais yi xam nañ ko képp koo xam ne nit nga ko ànd akam xel tey bàyyi xel ni réew mi doxe bàyyi xel ci àdduna bi xam nga ne liggéey xale yi bëgg nañ ko moo tax nag ñu góorgóorlu waxtaan ak ñoom FERA ba ñu accordeel ñu 300 personnes yoo xam ne nii danañ leen mën a jël ñuy liggéey ci dëkk bi recruter leen ci waa dëkk bi ñuy liggéeyal dëkk bi ngir ka dëkk bi mën a am beneen xarxaram bi bi mu am mu gën a taaru gën a ci cet waaye gën a taaru ci leneen ak leneen ak leneen loolu rek mooy suñu yitte looloo tax ñu trois 300 personnes yi mooy ñi nga xam ne mois de février bi janvier ak février ñoom lañ doon woo ñu ngi nii tey li ci ëpp 200 nangam yi defal nañ leen seen contrat ba arrêté nañ ko ba ubbil nañ leen compte ñu war a démarrer ñoom seen liggéey tey jii ci le 15 février 2021 jëm deux février 2000 jëm février 2022. 15 mars 2021 ñu war a dem ba 15 mars 2022 donc ci weeru un yi un la loolu lañ leen dan dajale tey woo leen ñu war a tàmbali liggéey bi ci kanam conseil municipal bi ci kanam monsieur le sous-préfet ci teewaayu banque bi nga xam ne ci lañ ubbi compte bi nga xam ne bu seen salaire yi jógee Fera directement dañ koy wiire ci banque bi banque bi wiire ko ci kenn ku nekk sa compte ngay liggéey bu weer dee nga dem directement ci sa compte euh, euh, retirer sa salaire muy ñe ñetti catégorie nag wala ñeenti catégorie yoo xam ne loolu lañ ko def ñi nga xam ne ñooy nekk ci terrain bi di liggéey dañoo am benn superviseur ñaari superviseur yu leen di superviser ak cordinateur yu leen di lu mat juróom-ñetti coordonnateur ak lu mat douze chef de équipe yoo xam ne ñoo leen di jiite ñooñu nag euh, séddale nañ ko ci dëkk bi dëkk bi nag fukki accès la ak juróom-benn yoo xam ne moom lañ war di topp entretien xool nañ ñi nga xam ne UCC mi nga xam ne mi ngi fi di def liggéey bu rafet di ñu jàppale ci loolu te état Sénégal teg ko fi mi ngi ci jàpp mi ngi ñetti accès yoo xam ne nii wala ñeent yoo xam ne moo ko yor moom lañ ko farale waaye personnel bi ñu séddale ko ci fukk ak ñaar yoo xam ne ni kenn ku ci équipe bu nekk am na foo nekk di fa def di ko def entretien du teewul nag bu ñu waree intervenir lu mel ni grande mosquée lu mel ni biir penc mi wala beneen gox boo xam ne nii chaque fukki fan ak juróom équipe bu ne dana dem ci benn quartier intervenir fa nettoyer foofa doore dellusiwaat ci seen axe yi nga xam ne moom la ñu nekk loolu rek laa newoon danañu ko leeral population bi leeral ko mbooloo di leen wax ne suñu yéenee guddi ak bëccëg mooy fexe ba xale yi liggéey fexe ba nit ñi liggéey. bon di féliciter monsieur le maire ci act bi nga xam ne nii def na ko ak démarche yi nga xam ne nii def na ko ci liggéey bi nga xam ne nii moom la indi si dëkk bi ba ndawi dëkk bi ak jigéeni dëkk bi gis ci seen bopp. di sant DG muy directeur cabinet bi nga xam ne nii moom moo ko doon coordonné ndax yaakaar naa liggéey bi biñ ko tegee ci loxaam dafa woo ndaw ñi ak euh, mouvement de jeunesse yi fi nekk yëpp ne leen liggéey bi mi ngi nii tegaat naa ko ci seen loxo liñ ci bëgg nag. mooy nañ fexe ba ñu nekk ci dëkk bi gis ci seen bopp yaakaar naa tey boo gisee recrutement bi amul benn nit boo xam ne nii ci beneen dëkk nga jóge ñëw fi ci biir dëkk bi ñëpp ci biir Touba lañ la jëlee ñuy sant monsieur le président de la république ci acte bi ndax kenn ku nekk xam na ne fi mu toll nii ndaw ñi soxla nañ ko mais maire bu Touba dafa def ay acte moom bi lii di am dafa fekkoon mu commencé ko yàlla dogal mu jël ñetti téeméeri nit. fas yéene leen a liggéeyloo ci dëkk bu sell bi nga xam ne moo di Touba kon monsieur le maire ñi ngi lay sant ñi ngi lay gërëm di sant sa conseil municipal yi nga àndal yëpp di dénk ndaw ñi nag ne leen liggéey bi dañ ko teg ci seen loxo pour ngeen liggéey ko mais waxuñu leen ñu jël leen defal leen ay contrat rek ngeen toog ci seen kër bañ a liggéey dañoo bëgg ngeen summeeku liggéey ndax yéen a wax ne da ngeen bëgg a liggéey kon jigéen ñi ak ndaw ñi loolu mooy message bi nga xam ne nii man moom laa leen di lancé. dama dama ginnaaw bi ñu sant yàlla damay damay dama ñëw teewee lancement bi. di ko rafetlu parce que di si sant aussi nguuru Sénégal parce que nguuru Sénégal moo fexe ba mobiliser ay fonds def ko fu ñuy wax feeraa muy benn fonds boo xamante ne bii collectivité territoriale bu ci ne mën nga fexe ba am ci donc loo xamante ne bi dina mën a tax nga mën a financer donc euh, sa entretien réseau routier bi nekk si sa commune. mais loolu aussi bu amee c'est parce que monsieur le maire aussi am na donc capacité bu ko may mu. fexe ba xam fan la war a mën a wutee ay ressources additionnelles mu dem wuti ka donc loolu loolu laa koy félicité parce que bu fekkoon deful loolu xëj na lii tey du ko mën a am lii nag mu doon loo xamante ni bii njariñ li dafa bëri